ba am ay diplôme am mënoon naa liggéey ci gouvernement yi wala ci consulat yi waaye dafa toog ci kër maamam di ko liggéeyal waaye yëpp moo ko sulli tabaarakallaahu formé xale yi ba nga xam ne xale yooyu ñoo formé génération bi waaye ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal sa fan yokk sa wér mu ne xale yi mu ngi leen di gërëm mu ne waaye ku ñëw fii da nga xam ne xale yi ña seen i nañ de. xale yi duñu xale yi kenn mu ne lim mag xam xale yi xam nañ ko wa xale boo xam ne am nga doom joo xam ne mu am na ñoo xamee tabaarakallaa seen doom yi mën nañu leen jébbali ñu sëy wala ñu ñaani soxna kon ñooñu duñ xale mu ne ñooñu duñ xale de mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ñeseen ku ñëw fii ñeseen léegi wallaay da xam ne ñe seen soppeeku na yàlla na gën a soppeeku yàlla na a soppeeku ci njub ci wërsëg ci xam-xam te yàlla defal ñu ñuy taalibe Seydi Ahmad Tijaan yi bari na ko amee kurus nag mu ne fekk yow jaan nga waaye doonoo Tijaan mu ne kon yàlla na yàlla def dëgg dëgg taalibe Seydi Ahmad Tijaan yi mu ne tabaarakallah télévision yi fi ñëw mu ne wal fajiri mm, RTS mu ne télévision yi fi ñëw wal fajiri mu ne tabaarakallaahu télévision wal fajiri lay njëkk a wax ndax rakkam rahmatullah alayhi muy Seydil Amin mu ne rakkam la ñeneen yi nag ay doomam lañ euh, mu ne RTS moom it tabaarakallaahu ñëw na jël lépp télé waaye tabaarakallaahu seen TV kadalika. ba mu ñëwee tey ba mu ko waxee. ba ñëwee tey ba mu ko ko waxee. Ah, yaakaar na ne ñëw nañ. mu ne tabaarakallaahu ñu yéen média bi ñu fi nekk Amina TV. ah nga xam ne suñ télé bopp la suñu sil la ak PEM TV suñu Kër TV Miratu Safa lew nañu seen TV seen TV ñoom ñëpp ñi ñëw nañ média bi yëpp ñu leen di gërëm di leen sant tabarakallahu ak paas yi ak naylul maraam ñoom ñëpp ñëw nañ alhamdulilahi rabbil alamin di beral ñaan cant jigéen ñi nga xamee tabarakallahu fuñ tàmbalee ñoo fii gën a bëri te dañuy toog bañ tas ñu door dem mu ne tabarakallahu ñi de buñ dangoon ak ñoom ah dana mel neneen kon sant na leen yéen jigéen ñi gërëm na leen gërëm goo xam ne ni amul fu mu eh, eh, yem yàlla na yàlla faj seen aajo barkeel seen njaboot yal na yàlla faj seen aajo yàlla yokk wërsëg wi wax leen amin xéewal yàlla baawaan yàlla may kàttan yàlla buñ màggatee tànk yàlla buñ màggatee bët yàlla buñ màggatee nopp mboolem cër bu ñu yàlla jox yàlla nañ yàlla bàyyi ak moom bu ñuy dem ànd ak moom mu ne bayaal bii mooy ba yàlla balaa jàpp laay ñees lu fi nit ñaan yàlla na ko yàlla may ci barke yonent bi ñu bëgg xaalis yàlla na yàlla may leen xaalis ak xam-xam ak njub mu ne ñu bëgg na ngëm yàlla gu wér yàlla na mu ne tabaarakallaahu dana ñëw ya, mu ne tabaarakallaahu mi ngi ñëw ci loolu mu ne. ñoom nag ñoom nag. mu ne ñi nga xam ne ñoo doon burdu rek waaru biir lañ. mu ne ñun dey waaru biir lañ. mu ne ñun ku ñu ñaanal ñu dem. ku ñu ñaanalu di danañ dem yal nañ dem waaye waaye bu ñu dem yal nañ leen yóbbaale. ci zahir ak baatin. jataay bii ñu toog. yàlla bu mu nekk suñ mu jataay yal nañ ci jataay ay jataay ay atti at téeméer at ci kanam. jàmm gii di ñëw. yàlla nañu wax ne gàmmu gi su fi am law nañu seen gàmmu la goo xam ne bu ñu fa demee mu ne moom day lum ñaan boobaa yàlla nangu ci kattanal yàlla nag mu ne dafa bañ néeg bi dafa bëgg ñëpp daanu nit di ñu indi dafa bañ ñëpp daanu waaye bu bu bu koron am na lu ñu ko won mu ne bu leen ko waxee mu ne boobaa ñëpp na na xëlës dencal ñu ko ba samedi incha allah mu ne ña seen dekki na ña seen dekki na ña dekki na te kenn mënatu